te chers téléspectateurs waa Ndaraañ euh, comme ni ngeen ko gisee tey waa Ndaraañ dañ déplacé wu ndax kenn ku si ne xam ne tey Sénégal dafa yeewu ak tiis wala dafa yeewuwaat encore ak tiis muy accident bi nga xamante ne tey la am muy si côté 6 jàpp 6 heures du matin ci nga xamante ne moom mooy boo rombee boo jógee Ndar di ñëw nga rombu Paal fi nga xamante ne tey jii boo rombee Paal mooy gën saar gën saar na nekk ni par exemple tey jii boo rombee gën saar yaa ngi dugg fi nga xam moom mooy lugo donc accident bi mi ngi amee ci diggante euh, Sakal ak fi nga xamante ni moom mooy euh, Louga ngeen saa nekk seen diggante ñoom ñaar gis ne ni nga gisee ni donc image yi moo koy témoigné euh, kii bee nekk nii nga xamante moom mooy euh, moom mooy Ndiaga Ndiaye bi kami aussi xam naa ne suñu régi daa nekk woon di leen masaw di leen wax inna lillahi wa inna ndaxte ji di di masaw tamit la famille éplorée ñi nga xamante ni seen doom wala seen ay mbokk ñoo si ñaak seen bakkan di ñaan yàlla yàlla xare ajo firdawsi yéen a xëppe biir na ndax metti na lool bi ñu waxee tamit di di masaw ñi nga xamante aussi ñoo blessé ndax kenn ku si xam ne jii diggante hôpital régional bu Louga ak hôpital régional bu Saint-Louis donc ñi ngi jaamante di indi li nga xam ne moom ay corps ay néew donc ñi ngi masawu vraiment c' est une une grande tristesse Sénégal Sénégalais les Sénégalais se sont réveillés encore dans la euh, dans la consternation ci beaucoup de tristesse gis ngeen aussi li amoon Kaffrine bu yàggul dara dara dara muy plus de quarante et quelques personnes tey jii ñu am vingt et quelques personnes donc ñi ngi ñaan yàlla yene yàlla seral waaye ici daf di ñaan yàlla di di di jàllal wàll benn benn message ndax ki gis tey jii la sacralité de la vie humaine lu mu mel tey jii maa ngi ñaan ñi nga xam ñoo ŋànk côté transport bi ak ñi nga xam ñoo ñooy état bi ñu trouvé laajante biir seen biir trouvé benn solution ngir mën a saafara li nga xamante moo fi xew ndaxte ji heure boo xëyee soo ñu ne accident muy muy s'accroître de jour en jour yaakaar naa ne kon tey ji war na mën a régler seen problème bi bi nga depuis euh, bu amoon Kaffrine ñu organiser réunion interministérielle xëy na jëloon ay ndogo yi nga xamante ni waa chauffeur yi waa transport dañu woon ñoom waroon nañu mën a péncoo ak ñoom laata ñuy euh, ñuy jël décision bi nga xamante mooy décision quelconque yaakaar naa loolu moo gën a indi indi mi fu mu toll nii nii nii à l'état nga xamante ni waratuñu xool li nga xamante mooy entre se renvoyer ñu renvoyer la se renvoyer la responsabilité se renvoyer la balle état bi euh, waa waa côté côté transport day xaw compliqué nanu waxtaan rek laajante biir suñu biir xool ñi nga xamante ñoo ñoom si blessé accident yu métti yi ndax tey maa ngi gis ne nañu décrété benn grève illimité à de demain mardi wala à de mercredi incha allah warabi grève illimité boobu noonu tey mën na jur loraange ndax tey fekk nañ def grève illimité ñëpp tey def affluence affluence fi xam ne mooy garage di njëkkante dem tukki donc jëyi mën a am te ñaan ma ko yàlla donc grève illimité aussi nan ko nan ñaan yàlla ku nekk bàyyi instant bi nan xool nit ñi dee ñi ñu doom a jox ñu jéem a xool lak lan lan lan lay def leneen di ñaan yàlla ki mooy aussi Mansour Faye moom i xamante ne xëy na ñu bëri ñu koy indexé waaye man du ma koy indexé dama koy ñaan lak lenn kese buy defar ci dara na jiital waa chef de service am maanaam su ko defee bu waa chef de service am jëlee benn décision bu ko waa transport con contesté moom mu ñëwaat moom en personne ni nanu bàyyi lii nan doxalee ne mu déglu tamit ñeneen ñi en tant que njiit boo jotee boo jëlee benn décision boo jëlee benn décision dafa irrévocable kenn dootu ko mën a déplacé kenn dootu ko mën a euh, kenn dootu ko mën a aussi changé donc na jiital chef de service am bu ñu jëlee décision bu baaxul moom mu ñëw gàgganti leen donc lépp seenu daanu ñu liggéey encore une fois de plus ndaraañu comme actualité bi mu demee indil leen yi ñi nga xam ne ñuy seetaan à seen chaîne di jaajëfal ki nga xam moom mooy euh, Doudou moo nekk si milieu caméra bi tey daala won image si côté caméra jël aussi ay témoins waaw bi ma ñëwee fekk naa fi ay nit ñoo xamante ne si moom ñàkk nañ seen bakkan boobu fekk naa ñu sàng leen fee ni ñuy jot a ay ni ñuy sàng seen ñàkk seen leen sàng ak percal waaw am ñoo xamante ne si génnaguñ boobu it en même temps waaw emprunté bi emprunté camion boobu mooy tam mi ngi si biir yeex na génn quoi mais lu la waay mën a wax daal ku fekkee woon lu nekkoon fii na nga xam ni affaire bu doy waar bu yéeme yéeme yéeme moo fi am yàlla seede na loolu sëwóor bi ñu ni kaar bi da doon moytu mbaam waaw après bi mu dalee ci kaw mbaam mi nag la perte contrôle fekki camion bi mu dal si kaw camion bi kon su ma jumalee oto bi jógee Ndar tombu Paal avant muy àgg Ngëñ Saar fa la nekk nii oto bi jógee woon fii la jógee benn dëkk bu ñuy wax kii Ngiig Faal Ngiig Faal waaw waaw si croisement Sakal la bokk quoi si ginnaaw mu ngi si ginnaaw Sakal fi la génnee foofu la yebee ay client tout le temps moom orel la day dem Dakar 5 heures du matin lay déparé foofu voilà mais tali bi boo bëggee dégg-dégg grand tali bi bu ñu ko defaree nii presque léegi ma deux ans kenn defuta ci bi te train boobu man chauffeur la bokk na ci li nga xamante ne si moom moo lay guidé pour nga mën a xam yow fi nga ne mais bu ñu ci deful train bi yow maanaam doo xam bu dee yow yaa ngi dem doo xam ne yow yaa ngi dem yaa ngi bàyyi li nga moom quoi deux ans mën na ko xaw ma un an et demi ba ñu ko defee rek léegi nii kenn defaatu ci ligne bi te xam nga loolu du yoon te bu ñu jógee ñu ni chauffeur yi chauffeur te ñoom ñi nga xamante si ñooñu jiite li ñu war a def defuñu ko danga jàpp xëy na doguma la problème bi c'est euh, responsabilité bi état la ak nit ñi man dama naan état bi la ak nit ñi ak chauffeur laa koy laa koy wooye ko waaw bokk na ci loo xamante ne si daal moom moo ñu dimbali ñun chauffeur yi mm-hmm. waaw ligne bi mooy tur bi laay mooy yu nekk di mel luy tàkk noonu. waaw koy fàtte am na côté fële ne booy génn Saint-Louis buy ñëw ci. vers euh, la déparé woon ba ba doguma la loolu dafay interpeller que nit ñi war def auto école parce que fekkee ligne continuer la mooy amoo droit nga doublé foo mu def discontinuer ak mu nekk ligne bu discontinuer nga mën a donc mu nekk loo xam aussi gars yi war na ko mën a gën a xam mais gars yi xam ñu malheureusement kon leen wax dëgg na da ngay dem a yées da ngay demoom yàgg yaa ngi li nga moom jël nga yaa ngi dem ligne 2 ligne 2 boo ko déggee mooy yow bàyyi nga si ligne bay jël li ñu jàmboor voilà empêché si li ñu jàmm place jàmbur waaw voilà ba pare borom jur gi nañ ñu dimbali ñu téye seen jur gi nañ téye seen jur gi man baykat laa damay bay chaque nawet damay ñëw fii bay sama dëkk ngi nii mais sama jur du ko sànni muy taxawaalu ndax li bay si la war a dundee waaw loolu dañ cee war a wax nañ téye seen jur gi lii yëpp mbaam bi moo ko indi waaw si yëpp léegi mbaam moo ngi dégg mu wax donc amit chers internautes waa Ndar ñi duñ def loolu anco encore continuer toppaleen information bi gis ngeen daa la woon image bi euh, mbaam mi nga xamante moom moo war a accident bi parce que Njaga Njaay moo la doon maytu dal ci kaw kaw bi ba jéye bi am mujjur ay mort euh, yenn yàlla seral di di métitlu accident bi lool parce que suñuy mbokki jullit ñoo fi ne oto yi fi tax woon bari na ñun mënuñu romb ñu daal di taxaw mën ak sama chauffeur Ousou Ndoye alors di métitlu lii trop trop trop trop trop bon suñuy mbokki jullit ji fi génn àddina aussi yàlla na leen yàlla yërëm yal nañ leen yàlla moo tax ñu taxaw pour méthode affaire bi affaire bi nag li ko causé benn mbaam. loolu laa la laaj. Mm. par exemple euh, ji waa ñu mbaam mbaam bi mu nga ne tëdd. mbaam bi parce que ñun d'habitude dañuy ñu nekk ci tali bi donc ñi nga xamante ñoo dëkk ci gox bi dañu war di yeew seen mbaam yi jàppale nit ñi. est-ce que aussi ay mbaam daan ko mën a yeew à chaque fois parce que fii boo xoolee ab c'est hors agglomération maanaam côté est fekkee dafa jigee dëkk xam nga ne dëkk bi fala mbaam mi dëkk parce que dëkk baa ngi nii dëkk bi tout pare sorewul mm, donc fi mu toll nii leer na leer borom mbaam mi tey foofu la dëkk mais du am borom parce que mbaam bu xas dugg fii andi fii jëye ji loo ko moom moom bu doon or sax da ngay bañ na dootoo ko moom donc li ñu li ñu bëgg daal mooy ñu dimbali ñu wax dëgg yàlla borom mbaam ñu yow seen jur parce que doo gis tey xaru laalum bu oto laal fii ci tali bi doo gis fasu kur ah, oto laal ci tali bi donc ñu ngi yeew seeni i nag yi ñoom la ñooy def loolu ak mbaam yi vraiment war na ñu jàppale parce que yoon bi fi la ñëpp di jaar man fi laay daal di dem ba Fuuta di def samay livraison. accident bi ma taxaw ah. bon li may tàggatoo daal mooy vraiment accident yi métti na fan yi vraiment na chauffeur si aussi xool li ñuy liggéey bon lii du guddi du bëccëg du du guddi bëccëg la bëccëgam nar a kàmm la donc ñoom xool li ñuy liggéey parce que accident mooy passé guddi la ñu téye woon oto yi ne bu accident amati donc téye nañ oto yi ne accident amati bëccëgam nar a kàmm lii amati jëye mel ni ba ñaar fukki nit ak nangam si loxo yàlla gannaaw buñ ci ban ban wasloo axame aussi wax loxo yàlla sa tool yàlla loxo yàlla mu ngi ci biir mais nag yàlla dafa wax ne dee leen moytu moytu dafa baax tey ji bu fekkoon ne daal jaar nañ ci kaw mbaam mi mbaam mi dee moo gën ni ñaar fukki nit ak nangam tey kon man daal loolu laa doon tàggatoo wa salaam. man chauffeur laa damay ñaax sama mbokku chauffeur yi damay ñaax sama mbokku chauffeur yi maanaam ñu daw ndànk parce que daw ndànk teewul nga yegg fa nga jëm ñun ñëpp ay chauffeur lañ mais daw ndànk teewul nga yegg fa jëm coon sa Omar Pène way na ko daw ndànk dal ndànk boo dawee bu baax nag dal bu baax man sama mbokku. yow yow laa responsable da nga jàpp ne chauffeur yi la. waaw chauffeur yi laay man moom ñoom laa luñ parce que buñ dawoon ndànk lii du am. dogal d' accord oto lu mu gaaw gaaw gaaw mën nga maîtriser sa direction daw ndànk. chauffeur nga waaw. maa yaa ngi sensibiliser sa mbokk chauffeur yi. sama patron waaw bu baax. parce que xel mu ngi jàpp ñaar. mais sama question moo gën posé mooy la ma tax chauffeur yi mu ñu di am nekk ñaar man dama la ko ba sonn mais kuy daw toute la journée aussi bëgg ko def. waaw aussi wax dëgg la mais xam aussi tamit yi chaque jour ñoom benn chauffeur la ñuy fay benn chauffeur la ñuy fay bo boo amee beneen chauffeur yow beneen chauffeur bi yow yaay neexal kooku pour mën a ànd ak moom bu doon transporteur dañu jël ñaari chauffeur di fay ñaari ñaari chauffeur ñu mën a wax mais benn chauffeur la ñu jël bu ko defee dañu wut siirumaan ànd ak moom te loolu du yoon boo yoree oto yu bari war nga mën am ñaari chauffeur mais waroo yor oto yu bari am benn chauffeur chauffeur bi jël siirumaan di ko jox si. à travers les dégg naa kuy verser chaque jour 300000 mais mu ngi fay 50000. war nga mën a war nga mën a sax normalement. 50 bi lay fay chauffeur bi bañ ko kon dinañ fay chauffeur normal mais chauffeur yi ñoo ko def que damay bañ lii salaire bi kii ñëw nangu ko mais bu ñëpp chauffeur yi boo ñu lu néew ñu bañ ñun ñëpp bokk bañ tamit ñu ngi si parce que lépp ñoom la parce que mënoo am ay oto bis yu bari dafa ay benn chauffeur muy dem ba ay Ndar ak wala ay Fuuta wala ay Casamance mënul nekk. salaamaaleykum ñoo ngi leen di siyaare di leen nuyu di leen jox seen waay di bokk ak yéen tiis bi muy tiis bu métti dalaat ci sport maanaam ci dal ci li nga xam si mooy transport maanaam dal ci transport parce que man mi wax ak yéen chauffeur la colporteur mais mbir mu nekk mbir mu yéeme mu méttee métti ci kaw askan wi mm-hmm. waaw soog bi nag ni muy amee moom. Euh, mën nañ ci expliquer lu xaw a takku. Mhm. parce que doo bëgg expliquer internet yi euh, li nga fekkee li nga gis exactement. waaw comme li ñu fekkee ci choc bi rek. Mhm. parce que soog moom bu fekkee nekkoo ci oto bi duggoo ci oto bi mënoo fekkee brusquement la fa xew mhm. waaye li nga xam ne si moom nga mën a témoin ci ci loolu nga mën a wax parce que bi ñu déggee bruit bi entre ay cinq heures quarante ci la am. cinq heures du matin waaw cinq heures du matin cinq heures daal ci am. bi ñu dégg bruit bi rek ñu jog fekk bi ma jógee nii maa sama grand bu ñuy wax Alaaji Moussa moom dafa yor particulier ma yor particulier bi ma jógee noonu moom woo ma téléphone ni ma am na buri ma ne ko nañ dem seeti ko ci laa taale sama oto moom itam mu taal otaam bi ñu ñëwee ci la ñu tombe fekk oto bi daanu nii camion bi mu daje moom mais bi ñu accès wax dëgg yàlla am ñu nekk mbànd jóg gi tout près ñoom itam dañoo daw ñëw mais bi ñu accès ci la ñu commencé génnee koor yi noonu ma xam nga brigade bi mi ngi nii sorewul cinq cent mètres. kon yéen a génne koor yi. voilà am na si ñu génne. waaw bi ñu agsee. blessé euh, ñu génne àdduna. koor ñoo xam ne dañoo dee. ci la gendarme yi ñëw biñ ñu ñu jàppale leen. ñu génne ñi nga xam ne si ñoo faatu. génne ñi nga xam si ñooy bale yi. yaa ngi dégg bi ñu jotee ñi nga xam ne si ñoo faatu. ci li ñu jot a gis ñun. dix huit personnes tëral nañ leen fii ñoo xam ne dañoo faatu. boobu déjà dix huit la woon. dix huit personnes laa gis man ci li ma mën a wax. biñ defee noonu amul luñ leen sànge ci laa jëlaat sama oto dem dëkk ba jëli loo xam si mën nañ ci leen muur ba nit ñi du leen gis. yow yaa dem jëli loolu maa dem jëli ay dorop ak ay sér ñu muur leen ci ba nga xam du leen mën a gis. biñ jógee ci loolu ci la sécurité yi bare doog a ñëw biñ ñëwee commencé def seen liggéey ci la ñuy écarté wu. dégg suñu jàll na le bopp li ci des moom xamatuñ ci dara parce que ñoom ñooy seen seen liggéey lañ def. parce que nekk ci liggéey bi. waa sapeur pompier ñëw après ngeen ngeen ngeen ngeen ngeen bàyyi leen liggéey mais yéen avant loolu yéen a yéen a euh, def def def seen kéemtulaay kàttan ba suturaal leen effectivement noonu la demee léegi nag bi ñu ñëwee ñu bàyyi leen nag seen liggéey mhm. ñun dem taxaw fale léegi présenté ji boo doon sensibiliser ñi nga xamante ni ñoom euh, chauffeur yi la wala akum si mu nekk rek actualité yi bëri na si côté accident depuis ba tey mhm. mi ngi gën di yokk da ngay sensibiliser euh, waaw sensibiliser sensibiliser moom du mën a ñàkk mhm. am na ñu ko man ak ñu ko xaw a tële te parce que boo xool ñi ko tëlee ñoo ci gën a bare parce que bu fekkee amoo benn responsable am na loo xam ne kenn warutoo yëkkati loolu di la ko jox parce que lu tel nag quarante 42 personnes bala ñu la kaa jox nga di ko dawal war nga am responsable responsable bi mooy lan nga nekk magum jëmm ànd ak sa xel ak dal ak teey Eh, dagu ma la mais la responsabilité da nga bëgg wax ni bon mën nga mais la la fekk ni ki être responsable day kii bi def conduite xam ñu oto aussi jox ko ah, parfois apprenti parce que Kaffrine aussi maa ngi dégg nit ki chauffeur ñu di ko wax mais doo ci mën a sukkandiku ba xam loolu am na wala amul parce que dama yaakaar ni nit mënoo yor oto yëpp ci 42 personnes jël sa apprenti di ko jox sama xalaatu bopp. kooku loolu information yi information yi day génn parce que en même temps fii lu mel noonu dégg nañ ko fi mais loolu man duma ko dëggal. c'est pas avéré. voilà kon ñu bañ koo dëggal. waaw loolu man du ma ko dëggal parce que ki ñu wax ni moom itam dafa am ku mu joxoon ab euh, oto bi mu dogal a dawal euh, apprenti am la euh, loolu dëggalu ma ko. parce que ñun safar bi xam nañ ko parce que fi mu jógee ak ñun ñoo bokk benn lieu waaw. léegi damay génn si loolu mu dugg si benn actualité ñi ngi waay décrété wala décrété nañu sax xëy na yéen yéen yéen ñi nga xamante ni am am na ay 23 mesures yi nga xamante ni ko aay yéen chauffeurs yi mais à part ça euh, mu mel ne yéen état bi déggoo leen ci ay kàddu ay yenn quelques points yi nga xamante ni peut être moo xam voyage guddi la ak si côté port bagage euh, aussi ngeen ni état bi war bala mu def dara waroon a mën a ak yéen waxtaan ak yéen ba pare mu mel ne que loolu jur benn genre coow euh, ba tax na tey jii yéen chauffeurs yi bëgg def benn genre euh, grève illimité boo xamoo ko lay jeex à part de mercredi. waaw loolu xam nga nit su fekkente ne da ngay wax ak moom ci sa lamiñ munu laa dégg il faut nga dox ak sa xel xam nga mit euh, li ñu wax ni moom lañ mesures yi ñu joxe am na ci mesures yoo xam ne d'accord nañ ci ak ñoom mais am na mesures yoo xam ne xel mënu ko jàpp. comme lan comme par exemple lii lii am tey mën na ne ci mesures yi ci la ci la bokk parce que bu ñu nee oto duñ daw à de 11 heures. ba cinq heures de matin loolu bu ñu ko waxee day nekk loo xam si lu compliqué la. day tax oto euh, bi am affluence day xat. effectivement tey jii tey man su doon dawal sama oto. ñu ni man maa ngi war a jëm ndar. ma ñëw fii euh, dix heures et demi fekk ma fii. ma war a jëm ndar dese soixante dix kilomètres. su ma doon daw soixante damay daw cent. Ah, parce que bala maa àgg bala onze heures jot ma mën a àgg. doo ma def parce que damay accélérer pour mën a àgg fa ma jëm. Mm-hmm. mais su fekkente ne missile boobu amul woon damay dox ak sama sago. Mm-hmm. bi ci topp mooy. bu ñu bloqué oto yëpp 5 heures de matin ñu ta ñu ne acca dem leen. jógandoo bu ñu jàppal ni transport li nekk ci kanamam rek lay xalaat. parce que mi ngi xalaat ni clients yi ñu ngi bloqué ci yoon wi oto bi topp sama gànnaaw du ma jot. mais mais bu jógee day dox. waaw d'accord naa li nga wax naa si mais man li ma lay ñaan rek ah man da koy ñaan tey autorités yi ñaan ko waa Sénégal ñaan ko ñëpp nan xool actuellement dayoo ak vie doomu aadama yi nga xamante ñu ngi ko siy ñàkk yéen aussi tamit yéen chauffeurs yi bu ngeen defee illimité ngeen war ko commencé mercredi mardi ngeen ba mercredi mercredi ngeen commencé day nekk en vigueur mais aussi est ce que du am li nga wax léegi est ce que tamit du xat euh, voyageurs yi bëgg a ñu ñëpp dañuy voyage njëkkante loolu aussi benn problème la aussi danañ koy ñaan am na mbir ñu toll foog état yu bàyyi yéen tam ngeen bàyyi ba yëpp passé xam état dafa war di boole yu bokk xam nga mënoo toog ci sa bureau clim mu seddu guyi ngay xam li xew ci kaw tali bi am na am na ñu nekk ci kaw tali bi xam nañ li xew mm-hmm. kon buñu demee bay woote waxtaan war nañoo mën a woo ñi nekk ci kaw tali bi di rulle xam li xew bala ñoo jël benn misir nañu woote waxtaan bu ñu wootee waxtaan ñu ah, ñun kat mesure bi lañ bëgg a jël yéen lu seen xalaat ñoom ñu nekk ci tali daal lañ jox seen xalaat bu ñu leen joxee seen xalaat ñu xool li ci baax ñu doxal ko li ci baaxul ñu leen lii mënut nekk man loolu laa xalaat waaye su fekkente ne da toog sa biir kilim mu seddu guy nga jël say mesure te mesure yoo xam ne leer na ma leer yàlla ni arrangé wul sax Sénégal waxatuma la ak ay doomu aadama Ndiaye yoo nga xam ne ñu ngi rulle day xaw day war. di jërëjëf ñu jaajëfal ñëpp rek encore di sensibiliser sa bopp si muy commencé ko ci sama bopp. waaw parce que tali bi li ko de la route wax bu ko doon def soo mën naa bañ am. est ce que dina am sax tamit. waaw loolay problème wala xaamu si aju aju si ndawal yàlla. su fekkente ne da ngay te xamoo code de la route li code de la route doo ko mën a xam doo ko mën a def parce que li ci dolli nañ moo dolli ci leneen permis nañ xool ñi ngi koy jox. te bàyyi permis quota tamit. parce que gën a danger mooy da ngay gis koo xam ne day dawal oto te du ko code day dawal oto te du nekk koo xam ne conducteur la da ngay dem nga lijjanti sax xaay ñu defal la permis jox la ko nga xëy ngàbb sa permis def ko sa poos man gis naa sama bët ñoo xam ne ñi ngeeg permis te mënuñoo dawal. bëri na fi kenn mu bëri na fi kenn jeex na kon nag état bi am na ci responsable. Hmm. Ah. kon nag ñu ngi jaajëfal ñëpp di ñaan yàlla lii fi am nii hmm. yàlla bu mu fi amati. waaw xëy na du mën a ñàkk sax waaye balam fi amati yàlla na fi gëj ba nit ñi fàttali uh-huh. waaw boo wax dana nekk oto oto oto buy daw moom kese du am suuf doom am dara kon nag ñaan yàlla lii daal ñaan yàlla bañ fi amati parce que ndogal goo gis nag tànk borom baañi ka nga ca uh-huh. xëy na nag lii ndogalu yàlla la en plus nag war nañu boole nag di defaat ñaan parce que réew mi ñaan la soxla uh-huh. réew mi lii boo ko dee gis lii xewoon bërki démb cyclogue yi lii amaat ci commune de Ngën Saar bii te lii mosu fee am nga xam ne kon mbir mi war nañ koo seetaat mhm. def ñaan. et bi mu nekk mbaam. Ah, mbaam mi moom li ñu gën a sensibiliser ci maanaam mbaam yi ci wàllu borom mbaam yi la mhm. parce que xam nga nga yor sa sa sa mbaam bu nawetee nga di ci liggéey bu noor jàllee nga ko loolu rafetul est-ce que gisagul nga benn xarum laadum bu oto fël. que dafa ko oto fël ko. Mhm. gisoo ko muy taxawaalu. kon mbaam yi ñu ñàkkal fayda mbaam yi nañ leen jël di leen ci seen kër yi. bu ko defee télé bi am jàmm ñu am jàmm ñëpp am jàmm parce que tey jii koo ne woon maanaam ana borom mbaam mun la xamu xaw ma ko kenn du wax ni man maay borom ah, lu indi jiw bi kay gëmën kenn dina nangu ni ma responsable bi nangoo kon xam ne ne ko ci yoon ah, waaw ñu ngi jaajëfal ñëpp di leen jaajëfal yéen itam mm-hmm. di rafetlu seen liggéey mm-hmm. di leen ñaanal yàlla xéewal a mucc ca mm-hmm. kaw ci kanam ci barke Serigne Touba sallallahu alayhi wa sallam amin donc très chers internautes waa waa Ndar Raññ gis ngeen ni nga ko defee euh, déplacé wu dem au code de l'information ànd ak euh, le caméraman Doudou très professionnel macha allah ñu jël image bi si côté caméra ànd duroon aussi daana woon image si kàttanu yàlla di wax ni rek benn mbaam comme ni ngeen ko déggee rek moo nekkoon en divagation oto bi di ko njaganjaay di ko meetu dal ci kaw camion bi donc mu entraîné ay mort donc di masawaat encore blessé di jaalawaat Sénégal di masaw di ñaanal tamit ñi nga xamante ñoo gën àdduna yéen la yàlla xare ajana fir daw si très chers internautes jaa ngeen jëf ñoo dig daje ci information fii seen chaîne Ndar Info